de la république mi jàpp ne warul génn ndaxte li nu mel infraction la mu ànd ak diffusion de données ak caractère personnel communiqué bu procureur de la république nag dafa mel ni rek day weddi li nga xamante ni moom la ñu jàng ci communiqué bi ñu attribué administration pénitentiaire bi procureur bi kon dogal ñu ubbi ab enquête ngir rek ñu xam ana ñan ñoo bind bile communiqué te bu ñu leen gisee nag ñu jàpp leen yóbbu ci yoon la. Omar Mbow euh, ca Touba lañ jëm bureau de vote ya fa bëggoon a léegi dañu koy bàyyi foofu euh, ba élection palum njiitu réew mi weesu dogal la bu tukkee ci xalif général des Mourides Macky Sall moo ko ko ñaanoon mu may ko ko loolu la ki yore kàddoom Serigne Bass Abdoul Khadra xamle cib ndaje gu mu doon euh, amal ak procureur sous préfet ak ki yore kàdduk Baye Fall yi ñu teewlu ko moom Serigne Bass Abdoul Khadra ci micro Pape Mbaye Diaw. Baye jox ndigal Baye yi ba waxoon ci élection yi ba waxoon ci élection yi wax nit ñi dañ koo dégg ne nit ñi dañ koo dégg ne sëriñ bi bëggatul ko wate ci dëkk bi sëriñ bi bëggatul ko wate ci dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi ba ma ñibbisee itam ba ma ñibbisee itam suñu jox ma ci liggéey ma àndoon ko jarbaatam di secrétaire am xaarim bi suñu xaarim Jóob ak ñam ko seqaloon ak ñam ko seqaloon ñoom ñoo ca liggéey ba bindoon ko ci këyit jébbal ko suñu wax leen ñu andil ma ko mu ne ma yët ko njiitu réew mi mu ne ma yët ko njiitul réew mi nii laa ko xalaat nii laa ko xalaat ma jóge fii dem ba jox ko ko. ma jóge fii dem ba jox ko ko. mu xool ko mu xool ko. yónnee ko ministre de l'intérieur. yónnee ko ministre de l'intérieur. ba mu ko ko joxee nag. ba mu ko ko joxee nag. ñoom bañ ko saytoo. ñoom ba mu ko saytoo. ñu xool xam ne xaj xat na. ñu xool xam ne xat na xam ne xaj na. wala mën naa indi jafe-jafe. wala mën naa indi jafe-jafe. bi sëñ bi xamee lool nag. lool nag. mu ne comme jàmp na. at ñi moom nañ ko bàyyi na loo xam ne dana gàllankoor nit ñi. ndax bëggul dara luy gàllankoor nit ñi. bu demee ba élection yu yoosu ñu jéem seet nañ ko doxale ba ca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 li li des ci kanam. li des ñëpp nañ ko may jàmm. na ko ñëpp may jàmm. te xam ne ña nga xam ne ña nga yëngatu ci wàllu adduna. nañ dem ci seen moom ci boppam nag ci na tëlu ko sax ndax li muy def mënatu cee boole dara. nangook euh, kàddu yi Serigne Bass euh, Abdoul xadr doon yeggee askan bi euh, message bi tukkee ci xalif général des murit gannaaw juróom benn simili dem na ba bootu ci juróom-ñetti waxtu ñu xuus ci xibaar yi dem ca Gorée. xam ngeen ne nag ña fa nekk sonn nañu lool fan yi ndax ñàkkum ndox chaloupe bi moo leen di yóbbul ndox waaye lu mu yóbbu daal du doy école d'excellence Mariama Ba sax dañ ko faf tëj ndax ñàkkum ndox xale yu jigéen ñi ñibbi di suivre njàng mi à distance maanaam cours en ligne reportage ca Île de Gorée Mamadou Omar Ba. ci kee bi ay téeméeri nit ñoo ñëw yor seen bouteille ak i paan ngir root si sangu togg bu dee naan sax moom mun nañ dem nañ dem jëndi kireen si bitig bi mais sangu bi ak ak la ñu nekk loolu moo ñu gën a sonal xam ne nii robinet rek fa am te moom ça veut dire les gens ils le vivent très très dur tu vois tout a pas bi compliquée xadi moom mënatul dafa mujj ñibbi ak ñetti bouteilles yu vingt litres

xale yu jigéen ñi ñoom ñëpp dañoo ñibbi ndax situation bi Ramatoulaye Sarr mooy proviseur lycée bi. Euh, booy xool sax ñun suñu rentrée scolaire dañ ko puusoon d'une semaine pour euh, mën a fexe pour situation bi rétablir bi situation bi rétablir aussi ba xale yi ñëw euh, après début bi dafa faible ba bâche à eau bi mënatul jël pratiquement dara donc on a été dans l'obligation pour des problèmes de sécurité et d'hygiène ñu wax xale yi ñu wàññeeku seeni kër. tey jii yooyu ñu nekk ci classe d'examen di wéyal seen cours waaye en lañ koy defee ñi fi dëkk nag fii ci île bi di di dund situation bu jafe bi situation bu jafe boobu Mamadou Omar ba mu ngi bëgg a yàgg loolu nag tax maire ba Augustin Senghor yëkkati kàddu sàkku ci autorités yi ñu soppi système bi ñuy alimenté ndox waa gore wala it ñu daal di defaraat réservoir yi nga xamante ne buy amaan ca Gorée lu mu dee dee ñu euh, mun ko supporter ba fukki fan ak juróom Augustin Senghor kàddoom ci micro Mamadou Omar Ba. mais jamono yi li ñuy jànkonte tëj nañ ko jànkonte wala sax mosuñ ko jànkonte maanaam toog lu dem ci diiru weer te ndox ñëwul euh, lu metti la nit yi di dem di rooti ndox Dakar amaana Sen'Eau mu ngi jéem a dakkal coono waa Gorée yi ak euh, gan yi fii ñëw bés bu nekk di indi ay euh, maanaam barigo ndox soit si chaloupe saa yi ñun ne joxee diir ne ñu war na réparer tuyau yi bu ñu ne defoon nañ ko ba ñu ne ndox mi commencé na ñëw bu toogee benn fan lu ci ëpp day demaat dañuy toog ay fan yoo xam ne robinet yëpp ay tëj dara du fi am te donc mu ngi commencé yàgg restaurant yi hôtel yi yëg yëpp kenn mënatul def sa liggéey weesoo loolu tam gis nga gorin yi góor jigéen mag ak ndaw ñëpp dañuy yor ay siwo ay paan ay barigo di dem ci waax bi ci kee bi di dem rooti xaw a jafe la te mbir mi bu demee ba sax sooke ni xaj na tamit installation yi ñoo xaw a commencé màggat donc euh, ñu ngi ñaan euh, kilifa yi xool ak Sen'Eau xool ak SONES ni ñu def ba changer ñu mbir euh, bi nga xam ne mooy canalisation sous-marine bi fa amoon fi gore ay réservoir mais réservoir yi depuis yi la fi nekkoon parce que dañ doon xam ne gore mun na ndox mais au moins ñi fi dëkk euh, di fi xëy di fi yeewal di fi ñëw daan nañu dem puiser si réservoir yooyu yoo xam ne dina am ñoo xam ne dañuy dem ba 400 litres mais léegi dafa désaffecté maanaam dañ ko bàyyi ci boppam kenn nangul investir te loolu defe naa Sen'Eau bi nga xam ne moo wuutu société bi fi nekkoon war na si jublu xamuñu nax moom la wala euh, SONES la mais nañ ñu dimbali fexe ndox mi dellu siwaat kaddu yi Augustin Senghor maire bu euh, gore poccu poccu ginaar yi ñuy importer di ko dugal ci réew mi te jaarul yoon ñiy yëngu ci yarum ganaar ñu ngi ci artu autorité yi ndax pooc yooyu saytuwuñu leen ba xam ndax mënees na ko lekkam déet démb lañu ko xamle raax nañ ca seeni doléance euh, démb lañ ko doon xamle donc ci ndaje gu ñu seqoon ak taskatu xibaar yi ci teewaayu Amadou Sabar Ba

lello bi nga xam ne ne li ñuy def dara jubu ci ñu ngay salfaañee réglementation nationale bi nga xam ne ne mooy aar Sénégal ci géej gi di ko jaarale ci frontière terrestre yi du ñàkk nag ay complicité yoo xam ne ni si dina ci am na yolomal boo xam ne ni si bu njëkkaan sax li nga xam ne sañuñ ko woon maintenant ñu ngi koy sañ tey ji dugg ci Facebook bi di nga gis ku koy déclaré wane ay photo di jaay ginaar nga xool ko xam ne xel li ay produits importés la donc bu ñemee ba yegg yolomal nañ yolomal boo xam ne si war nañ cee jóg. ñoom acteurs yi nag fi mu toll nii ñi ngi artu tey woo gouvernement bu Sénégal mu gën a yokk kaaraange gi ndax rek mooy tax askan wi mën cee mucc góor a fay. fexe ba loi bi nga xam ne teg nañ ko depuis 2005 mu jur lii mu jur ci filière avicole mu yegg fu kawe loo xam ne suñuy dëkkandoo yi nekk ci sous région yëpp ñu ñu koy ñeewee euh, ñu bañ koo nërmel ñu bañ koo nasaxal euh, pour fexe ba euh, lépp li nga xam ne ay daan la ci ñii di indi produit ñu teg ko ci ñoom ba découragé képp ku nga xam ne ni si 2021 génne na ñeenti téeméer yu tekki juróom fukki milliards ci suñuy koppar teg ci ñiy liggéey ca boobi le secteur barina na loolu bu ñu sukkandikoo ci interprofession avicole fii ci Sénégal ngaay mexe ñetti junniy agriculteur la ñu nangu seen suuf ndax chantier bi ñuy defar di autoroute Dakar Saint-Louis Euh, ñu ngi sàkku nag arbitrage bu banque africaine de développement ñu ne lañ leen jox ne dàmpaay daal nanguwuñu ko benn yoon ndax dafa tuuti noppi fañ leen bëgg a yóbbu daal ngir ñu euh, installé wu foofu ñoom itam ne ñu bëgguñu ko ndax euh, du du respecter seen seen i doléance Cheikh Anta Diop ci ngaay mexe gi lañu daje mooy ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo jiite collectif bi ëmb baykat yi féete kër mbir ndaw kayaar jàpp pir baraw dikkoon fii nag doon waxtaane seen nekkin jafe-jafe yi nga xamante ni am nañu ko ñoom ñii de ñi ngi sàkku nag ci waa banque africaine bu développement ñi nga xamante ne ñoom ñoo financé projet bi ñu wax ak nguur ak Sénégal ndax ñu jooyanti gën a duufal ndàmpaay yi nga xamante ne moom la ñu warloog ñoom góorandooy moom moo jiite collectif bu Tiwaawan liñ ñu waxoon defuñu ci dara ñoom ñooy bind ab document muy plan de réinstallation ñoo xam ne noonu lañ war a indemniser nit ñi indemniser wu noonu damay joxe benn exemple rek koo xamante ne day def maraîchage bënn teen ñu diko ko indemniser soixante mille loolu xam nga ni jaar terrain à usage d'habitation ñu proposé ko quatre-vingt mille limon buy produire douze mille francs ñu koy proposé nit xam nga loolu kenn mënu ko d'accord état bi à travers les commissions installées fii ba Saint-Louis respecté wuñ ci dara Saliou sekk mii jiite collectif bu Kër Mbir Ndaw nee na mbir mi de kenn xamul lu muy nuroon ñu demee conciliation préfet li ñu seetlu mooy bi mu ñëwee Kër Mbir moom dafa wax ak Kër Mbir Ndaw ay autorités bari ni leen kii mètre carré mu ngi si joxe mille cinquante francs ñun ñu ngi doon ko wax pour mu respecter document Barthe bi moo tënk spécialiste lépp loo xam ne jëm na ci wàllu suivi projet infrastructure te waa banque africaine de développement financé ko moom nee na dina ci dox ay jéego ba mbir mi àgg ci kilifa yi nga xamante ne ñi ngi ci banque africaine de développement tey mënoo wax ne par exemple taatu mango yaa ngi koy indemniser soixante quinze mille si part bi publier ko ba ñu approuver projet bi ensuite nga ñëw di fay par exemple cinquante mille loolu moom c'est une violation des des politiques et des procédures de la banque ñi ñu fas yéene yëkkati seen tool nee nañ organisation internationale yi am na luñ ci digale te loolu nañu ko topp RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ministre gi ñu denk armée bi euh, démb la doon euh, inauguré euh, benn brigade gendarmerie ca Mbour ak it beneen ba ca gandi gal mu di ñaari brigade gendarmerie yu bees yoo nga xamante ne daal la leen tax a jóg mooy gën a dëgëral kaaraange gi ci Petite Côte bi personnel ba fa nekk it daañu leen tàggat ba ñu mun ko do mën a doxal liggéey bi Ndeye Mati Dieng. ñaari brigade gendarmerie moom la ñu dalloo benn bi nekk Gandigal beneen ba ca des nekk Mbour jëwriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk l'armée bi Oumar Youm ne mbégte mu rëy la ci àndal. mu ngi tàmbalee inauguré déjà benn état major compagnie bu mucc ayib mais gis nañ ci état major bi aussi ay complexe de gendarmerie unité de brigade routière unité cynotechnique yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ay ay teef la ci wàllu équipement ñëw nañ fi encore dernière étape pour le département de Mbour di inauguré euh, escadron de surveillance et d'intervention bi nga xam ne moo nekk fii Sénégal. ci nii kon nguur gi ne dafa bëgg gën a ñoŋal kaaraange gi nga xamante ne am na ci Sénégal ndax moom mooy yoon ci dëkk bu ni mel képp ku ci nekk da nga war a sàmmoon tekk sarti dëkk bi. xam nga président de la République bi mu ñëwee ci bopp réew bi dafa jàpp ne dafa am ñetti bopp ñetti pilier yu am solo Sénégal mën a dem ci kanam pilier bi ci gën am solo ci ñett yooyu dafa ne woon il faut ñu am paix il faut ñu am sécurité il faut ñu nekk dans un état de droit il faut ñu améliorer la gouvernance gis nañu nag fii ci gendarmerie wax dëgg yàlla ay moyens yu am solo yu ñu jagleel sécurité ba tey ñi li nga xamante ne ñoo fiy liggéey mu di gendarme yi dinañ leen gën a tàggat ci noonu kon dinañu gën a mën a def seen liggéey. pour permettre gendarmerie mu accomplir mission yu noble ne moom lañ ko confier dans la sécurité et la défense nationale. ko vraiment suñu xel dal na. gannaaw bu ñu gisee lii nga xamante moo di général Moussa Fall daal di fàttali ndawam yi seen cër lépp li nga xamante war nañ ko def seen kéem kattan ba yile gendarmerie bi dox ci ni mu waree Ndeye Mathi Dieng Mbour rajo Futur Media. RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. acca doxalal. daal wàllu football lañ koy doore. Mhm. Euh, daal di wax euh, ci affiche finale lii di euh, sixième édition. HCCT euh, tron HCCT moo di euh, au conseil des collectivités territoriales yi fi nag euh, football amateur bi la daal di concerné ñu koy amal ca diwaanu Kolda affiche finale bi nag dal dañ ko xam ni ki démb gannaaw début fi la ñu doon amal diggante Africa Promo Foot lay daal di doon ak ñii di waa Gazelle FC. leneen li nga xam ne dañ ko wax moo di demi-finale yi démb la ñu ko doon amal si la ñu daal di kon boo qualifié ci wàllu final Africa Foot moom dafa dal di daan ñii di waa Fierté FC bu Mbacké benn bal ci dara équipe bu Ndakaaru bi di Africa Foot moo ko daal di daan kon bokk euh, benn bal ci dara jàppale nag bit bi ñu ngi ko dugal ci njeexitali jongante gi gannaaw ba yëfe yéexee nag euh, ki nga xam ne moo di Seydina Mohamed Ibnou Sané di tàggat équipe vainqueur bi daal dina yëkkati ay kàddu moom nag ay gëtam ñu ko daal di teg ci ndam di final gi nag ëllëg lañ ko fas yéene amal ñu daal di ko déglu moom mi nga xamante moo di Seydina Mohamed Ibnou Sané satisfaction satisfaction. ab satisfaction dëgg la ñu am ci ndam lii vraiment yombul woon waaye xale yi wane nañu ab te dëgg rax si dool yi tamit ñu am ay dirigeants yu baax teg ñu ci ay conditions yu mucc ayib ñun nag xam nañ ni am nañu niveau loola sax tax ba bépp équipe bi nga xamante ne war nañoo mën a dajeek moom jàpp nañ ni war nañoo am ndam ci kawam ren nag suñu objectif mooy gagné lépp luy trophée waaye tamit comme ni ma ko waxee rek daan bépp équipe bi nga xamante ne mu ngi suñu kanam. se leneen li nga xam te mën nañ ko ci wax itam moo di beneen demi-finale bi démb la woon ba tey diggante Étoile Lusitana ak ñi di waa Gazelle FC Gazelle nag moom moo ko daal di daan benn bal ci dara seen bit ko dugal moo di euh, Talla Dabo bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee championnat bu Sénégal jàppale nag yëf yi danañ ko daal di door niki ëllëg di euh, championnat professionnel bi Ligue 1 beeg Ligue 2 bi football ca biti réew ak lii di Europa League démb troisième journée bi ñu ngi ko doon amal. Olympique bu Marseille moom ca Vélodrome mujj naa am ndam ci diggante ak AEK ñetti bal ci benn euh, googu lay jogante nag kii di Iliman Ndiaye jot na ko bu mu daal di jeex kii di Ismaïla saar moom euh, daal di na euh, dugg ba match bi fukki simili ak juróom gannaaw ndam boobu nga xamante ne waa Marseille am nañ ko fi mu toll nii si seen poule ñoom ñoo féetee ci place bu njëkk bi daal di kon bokk jiital seen adversaire du jour boobu nga xamante ni moo di AEK Athènes ba démb ñoom jot nañ ci am ndam benn bal ci dara. Brighton moom mujj naa am ndam itam démb ci diggante mooy Ajax Amsterdam 2 Leverkusen moom itam daal di dar ñi nga xam te ne ñoo di waa Karabakh juróomi bal ci benn Olympiakos mujj naa am ndam itam ci diggante mooy West Ham United ñaari bal ci benn AS Rome moom itam daal di gagné démb ñi di waa Slavia Prague di waa République Tchèque ñaari bal ci dara. Liverpool moom dafa daal di tër tër yu métti sax ñi di waa FC Toulouse di équipe France juróomi benn Panathinaikos moom dafa daal di ñàkk démb ci diggam ak ñii di waa Rennes ñaari bal ci benn bu loolu weesoo ñu daal di waxtaane wàllu euh, para basket Euh, section sénégalaise nag euh, bu euh, para basket ñoom di yëngu ci wàllu basket toog ci li nga xam ne moo di wàllu fauteuil roulant ñoom nag kii di njiit réew mi dañu bëgg daal njiit réew mi recevoir leen gannaaw bi nga xamante ne nee nañu moom mi Macky Sall dina daal di dalal suñu gaynde yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu football ba pare daal di tox daal di lu gannaaw jéego bi nga xam te ne ñoom itam amaloon nañ ko ci coupe du monde bi weesu woon yàggul dara foofu ca Indonésie ñoom ak euh, waa Parabasket nag nee na ñoom itam gannaaw bi nga xamante ne nii def nañu ay mbir euh, ba ñëpp ràññee leen nañu recevoir euh, ñi nga xamante ne ñoo di malentendants yi noonu itam lañ leen war a recevoir ba tax na nag ñoom dañoo doon amal sax démb ak conférence de presse ngir yëglu ñoo seksi Nabil Niang section para di saako ci njiitu réew mi Macky Sall ngir rek mu corriger erreur ñàkk leena bañ a dalal ci jamono ji muy dalal gayndey Sénégal yi nga xamante ne seen ko dégg-déggin dafa des Cheikh Ndiaye mooy seen président. la section sénégalaise para basket en fauteuil roulant yëkkati kàddoom tey pour wax ak njiitu réew mi di attirer attention di ko wax monsieur le président de la république ñi ngi rafetlu initiative bi nga jël pour dalal suur fële ca am na équipe parabasket également bu dem compétition bërki démb ca Accra def fa jaloore bu rëy rëy rëy ñëw également indi médaille bronze. ginnaaw ba ñu amalee ay performance yu baax foofe ca Accra Issa Dia bokk ci équipe nationale parabasket di dëggal kàdduk seenuk président le président gis nañ initiative bi nga xam ne moom lay def ñëpp rafetlu ko donc ñun ñoo ngi xaar aussi tamit suñu wàll ci affaire yi parce que vraiment on a le mérite te liggéey nañ fa loo xamante ne si ni yombul équipe def ko parce que c' était la première fois ñu participer dem indi médaille de bronze gagné ay équipe yu mag. bon di wax ne nag des fois être que ay lenteur administrative dina tax yenn problème yi am mais bu weesoo loolu ay partenaire lañu. Cheikh Ndiaye di xam la ne amul benn jafe-jafe seen digganteeg jëwriñ gi dénk wàllum féliciter suñu ministère des bu baax a baax a baax a baax parce que tey même traitement bi nga xamante ni yenn fédération yi moom la ñu am ñun même traitement boobu lañu am ak le ministère des sports bon di wax ne nag des fois peut-être que ay lenteur administrative dina tax yenn problème yi am mais bu weesoo loolu ay partenaire la ñoom section para basket di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ngir rek mu boole dalal gi muy dalal équipe nationale bi nga xamante ne seen ku dégg-déggin dafa des boole leen ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu para basket. ok Barthélemy fii lañ koy daal di yemale xibaaru takk yaram. ok jërëjëf Cheikh Tidiane. Hmm. pour man RFM rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. xibaari aada yi ñu ànd ci Kana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi Sénégal ràññeeku na loolu ci juróom-benneeli édition meeting international du livre des arts assimilés bi ñuy amal jamono yi ca Côte d'Ivoire slameuse yi ak bindkat sénégalaises yi ñoom ñoo daan weccoo euh, xalaat ci anam yu ñuy euh, bindee. ak étudiants yi ak élèves yi ñëw euh, teewlu bis bu njëkk ci ndaje bi bokk na ci li ñu gën a waxtaanee nag wàllu euh, jàmm ñoo ànd si ak Salamata Ousmane suñu envoyé spécial ca Côte d'Ivoire. lu tollu daanaka ci ñaar fukki ndaw lay élèves ak étudiants ñoom ñoo daal di bokk ci atelier islam bi kenn ku ci nekk ci ñoom daal di xalaat ci ponk bi di wax ci jàmm ci Afrique Black Yaay Fall slameuse sénégalaise la moom moo doon animé bile atelier di wax ni am na mbégte loolu ci ni xale yi daal di participer ci bile atelier. ay xale lañu ak ay ndaw yoo xam ne musuñu def slam tey ñu def ko pour pour une première ça a été c'est vrai que nag yombul woon mais. explication yi ma joxe woon directive yi ñu respecté ko kontaan naa ci torop nag. jàmm moom mooy ponk bi ñu daal di waxtaanee ci juróom-benneelu ko édition Mila boobee ponk it la ñu daal di waxtaanee ci atelier islam bi ngir Black Yaay Fall moom façon la ngir daal di wan yoon bi. ndaw africain yi ci jàmm jooju Afrique di woote. Afrique sowu jant dafa soxla jàmm. te jàmm si la lépp xat donc ñu teel leen di wax tàggat ci loolu. ñu màggaale ko day am si bind nañu déclamer vraiment ci loo xam ne yaakaaruma ko woon mais génn nañu li ñu am vraiment def nañ ko Aïda Aïssatou Diba bindkat la sénégalaise moom it mu ngi daal di wax njariñ bi nga xamante ni si bindkat war na koo am ci ponk bi lee bindkat li may wax moom porteur de voix la maanaam nit la ki nga xamante ne mu ngi fii chaque fois am na lu mu war a wax ci wàll paix indi ay temam andi ay solution bëccëg bu njëkk bu moom it daal dinañ ko fësale ak teewaayu élèves ak ay étudiants yi nga xam ni bokk nañ ci ci ponk yi ci mel ni artiste ak écrivain se raconte ak femme créée pour s'affirmer Salamatoum suma Diallo fii ci Grand Bassam Côte d'Ivoire rajo Futurs Médias. commune yu Ngor Yoff Hann bel ñoom la ñu tànn ngir ñu participer euh, ci édition bu njëkk Dekkil Art mu di ab festival bi ñu jegleel art ak culture war ko amal ñetti fan ci weeru décembre gi ñu euh, dëgmal réalisateur scénariste bi di Mohamed Lamine Thiam moo ko taxawal. projet la boo xamante ni dafay revaloriser la culture. Euh, locale en quelque sorte Dekkil Art projet la boo xamante ni dañuy euh, tànn ay commune commune bu ci nekk indi un représentant théâtral mhm. mais du nekk benn troupe ci koñ bi troupe bi yëpp ñoo war a daje def benn sélection pour ñu am benn homogénéité ci commune bi mhm. indi benn équipe boo xamante ni ñoom ñooy euh, def kii comment dirais-je rubrique cosaanu gox indaale aussi benn acteur boo xamante ni dafay def art visuel mën na nekk peinture sculpture et cetera commune ñu jël nag ñoom ñooy def compétition seen biir kenn si ñoom jël raw gàddu gi. waxtaan gi ni mu gën a yaatu ëllëg euh, samedi Mouhamed Lamine mooy doon ganuk seen magazine di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi di daje ëllëg incha allah. Touba Darou Salam Caro Prestige. ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeri AAD.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 ubbi l'observateur njiital kaso yi ci réew mi di directeur administration pénitentiaire ab lettre bu mu bindoon li dal Ousmane Sonko fa mu tëdd ca kaso ba jël lettre ba yónnee ko garde des sceaux ministre de la justice maître Aïssata Tall Sall l'observateur na nañu lettre ba mujj ci pénc ma yëf ya senn ba far siiw lettre ba dana kii di Ousmane Sonko ñaari fan a ngi yoo xam ne mi ngi ak bu toll ci 40 boole ci ki di wàccu ak di waxtu wax ji wax xew xam na ne dinañ ci enquête ba xam kan moo siiwal lettre DAP bi DAP di direction administration pénitentiaire Le na ñoo ngi yëglu ak di alerté ci état de santé bu Ousmane Sonko état de santé ba mooy yaram wuy tàng jër ba yegg ci 40 degré ak wàccoog waxtu moom la kii di Ousmane di dund ñaari fan yi li génnee document bi nag Le Quotidien nee nañu moo ëlëm ñu bari ba tax procureur de la république bi ubbilu ci ab enquête source soit di ñu wax ne ñoo ngi wax ay plainte ñu nar a def ngir xam fan la inde bi folote Vox Populi bind na procureur de la république Abdou Karim Diop ngi rëbb ak rëbb lu ñu siiwal donne médicales yu Ousmane Sonko yi réew mi quotidien ñu ci xët mu njëkk Sonko borom maintien teniratul fa ne sikki ma nga jàppoon na ci loxom ba jëmoon ak moom barsàq barsa wala barsàq libération mi ngi xëy di ñu xibaar ci xët mu njëkk tiisu réy wi am ca gànjal ga àllarba jàpp alxames yéenekaay bi nee nañu gaalug loo gu déparé woon Sénégal doon dem Espagne moo këpp ci waaxi ndar yi ña newoon ca gaal gi bi mu këppoo journal bi nee nañu am na juróomi néew yu ñu seppee ci ndox mi te loolee nag libé nee nañu bokkut ak ñaari gaali looco yi marine bu Maroc xeetali ñeenti téeméeri nit ak fukk ak juróom ñoo newoon ca gaal ga ñu bari ci ñoom ci géej gi la des ca Kafountine fa la gaal ga déparé woon ñu teere ñàkk bu wér ci ñaata nit ñoo ca faatu ña mucc journal bi nee nañu jël nañu leen delloo leen gànjool ci seeni mbokk waaye amul kenn ci ñoom ku nanga wax ci li xew li xew mu di mbëkk mi source mi ngi mel ne ku naan ñu jël gaal dem Espagne yàqi tànk jamono ji ndax ña fa nekk bu weer wi deewee mu di fin octobre ñoom ñëpp la ñuy dugal ci avion dellu si leen ministre de la défense bu Espagne mi ngi ci réew mi démb la fi yegsi te loolee moo koy fi casse-tête bi mooy féewaloo gu gi ñu nemmeeku ci seen langue gi di APR fant siro gaa ngi ne kurru ci biir APR l'observateur mi ngi ñuy waxit taxawaay bi ñuy xaar ci président Macky ngir mu lijjanti ñaaxo ñaaxo yi am ci parti bi ba ñëpp nangoo topp ci ginnaaw Amadou Ba jàppale ko ci ñi fas yéene topp ci ginnaawam jàppale ko ba mu am ndam moom Amadou Ba kenn ngi ci ci libération ubbil yéenekaay bi mooy Moustapha Messere responsable politique ca Mbàkke tax mu jug fas yéene jàppale candidat bii di Amadou Ba nee na li fi président Macky Sall def ci ñaari mandaam yi bari na ci lu baax waaye am na safaando moo tax mu ne bëggut a dégg waxi continuité renouvellement la wax ñu wax ci waxi ginaar yi xëy di sab ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool IPAS di interprofession des producteurs avicoles seen conférence de presse bi ñu doon def démb doon ca wax ak a waxtaani musiba mi ñu ne moo yot seen secteur bi yéenekaay xëy nañu ci dellu si laas yéenekaay Walf Quotidien Le Quotidien Tribune ba ci journal Point ginaar yi ci réew mi te ci kuréel gi ñu naan IPAS nee nañu doon te tere nañu ñuy importer ay ginaar am na ñuy nëbbatu du dugal ci réew mi ay cuisse de poulet te cuisse de poulet yooyu ñu jële bitim réew du ko dugal ci réew mi musiba la ci askan wi poulet morgue la ñu ko tudde point actu ne ñu ñi ci bi nee nañu li ñu bëgg mooy état bi wax ci ni mu gën a gaawee ngir mu dakk ne suñu ko seetaane du jur jàmm baaxul ci askan wi baaxul ci employé Walf Quotidien bind ne ñi yëngu ci wàllu poulet de chair jamono ji chair de poule la